Assalamu asalaamaaleykum mbokk téléspectateur u Diassigui TV comme ça sunu mbégte ak contenté la and ak yéen ci seen autre xibar dina taataan lépp loo xamante ne dafa xew ci bëss bi comme ni koy dorel bëss bu ne dañuy waxtaanee ponk bu jëk bi ci lu jëm ci li nga xamantene ne di mbiru wér-gu-yaram euh, tey ji tamit jot nañu effectuer wat ay test yi nga xamantene ne euh, dafa laal ci li nga xamantene ne moo di euh, mbas mi tey ji nag sur 970 tests yi nga xamantene jot nañ ko effectuer 127 nak ñu ci ñu wat positif waaye liñ ci gëna a nemmeeku mooy 113 euh, euh, cas contact euh, suivi ak 13 cas communautaire ak benn cas bo xamante ne cas importé le fii ci AIBD 72 patients jot nañu mucc ci mbas ba wat fi nga xamante modi moo di seeni kër deux nouveaux décès tamit jot nañ ko enregistré ci bus bi waye tamit amna 36 cas graves nga xamante nemeku nañ ko ci service de réanimation nek diganté hôpital Fan ak fële ci hôpital principal bu Dakar ba tay ci lool lañuy ñuy ki nga xamante modi ministre Mbaye Ndiaye ak député bi Yaya Diallo ni nga xamé woon na dañoo amoon tamit ci li nga xamante modi contamination Covid 19 bi ginnaaw bi len leen hospitalisé fële ci hôpital principal bu Dakar lu mat ci fukki ak juromi fan fu mu toll nag daanaka nag seen. yaram féex na ba ñu delluwaat fi nga xamante ne moo di seen njaboot. ba tey ci ki nga xamante ne moo di économiste bi di Ibrahima Diouf moom ci boppam fu mu toll nii mu ngi axtu askanu Sénégal di askanu ñu di axtu tamit képp koo xamante ne ci euh, autorité yi nga bokk moom ci boppam moom moo ngi leen di axtu di leen xamal ni que euh, lii di euh, Covid bi bu fekkee ne wàllante bi ba ñuy gën di law li nga xamante ne nag moo di économie day gën a suux parce que dina am entreprise yi nga xamante ne dañu duñu liggéey waaye du entreprise yi kese bu xoolee am na ay restaurant ak ni ñu mel yi nga xamante ne ba tey jii bi mbas bi duggee ak léegi daanaka ñu bëri liggéeyuñu ba tax na am na ñoo xamante ni sax dañuy wàññi seen personnel bi ngir seen liggéey mën a jaar yoon loolu nag tax na moom ci boppam fu mu toll ni nag amee na jàkkaare waaye tamit mu ngi ñaax képp koo xamante ne tamit da ngeen nekk di liggéey na def li nga xamante ne moo di euh, sa matuwaay ngir euh, yembalal leen ñoom seen jëm bopp seen liggéey kii di jiitu réew mi ginnaaw bi mu sàkk woon na yi ñu delluwaat fële fi nga xamante ñoo di euh, ci bawu l'école yi le 25 juin bi ñu weesu mom ci boppam deugmal na calendrier bi nga xamantene mom moom la fësal ngir xale yi mën a amal seen euh, jangate ndax mom ci bopam mu ngi xamale ni que ñom ti xalé yi euh, fas yéene ne ñoo tëj ci fin septembre bi waye bu ñu xoolee nag ñoom seen jëm bop bopp daanaka le début novembre dañuy ubi wat mom ci bopam mu ngi xamale ni que ñi di euh, enseignants yi ñom ñoy njëkk ubi ndax ñom c'est le 5 novembre la ubi ubbi seen buntu waye xalé yi nak le 12 novembre la déllu wat fi nga xamante ne ñoo di ci bangu l'école problème mu littoral bi nga xamante fan yi gisoon ngeen ko mu ngi euh, wër àddina mu ngi wër Sénégal ci lépp loo xamante ne mooy maanaam suuf yi nga xamante ne euh, équipé nañ ko ci euh, booru corniche bi ci anam yi nga xamante ne jaarul yoon ñoom ni seen jëm bopp kii di porte parole du gouvernement bi gouvernement bi di Seydou Gueye moom nag jotoon na ci yéy yàbbi ndax nee na kii di njiitu réew mi jëloon na ndogal moom ci boppam jëlee fa lépp loo xamante ne def muy maanaam hôtel yeeg nu ñuy mel ñi nga xamante ñoo équipé littoral bi moom nag dëgmaloon na benn programme boo xamante ne nag loolu la ci loolu la doon xeex waaye kii di Mamboy euh, Diaw nekk ki nga xamante ne moo di euh, directeur bu impôt et domaine moom tey jii nag jot na ci yéyyaa bi ndax moom ci boppam mu ngi xam ne ni que njiitu réew mi musul jël ndogal boobu noonu ndax lépp loo xamante ne dafa nekk ci littoral bi fa lañ koy bàyyi loolu nag tax na askanu ci boppam euh, jaxasoo di laajte ndax moom ci boppam yëgoon réew am déet ba tey ci wàllu suuf ki nga xamante ne moo di Babacar Ngom nekk président bu Sedima bi moom nag tey la war a jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir waxtaanee li nga xamante ne moo di titre foncier bi nga xamante ne fa la def bu Sedima bi ngir ndax yàlla nit ñi ci boppam xam lan mooy problème bi moom ak askanu Ndingler ñi nga xamante ne ñoo fa nekkee ndax xëccoo bi bëri na tax na waaye tamit kenn xamul fu dëgg féetee ba tax na moom ci boppam mu xëy na bu waxee nit ñi mën a tranché xam li nga xamante ne moo fa xew ak yan anam la fa demee. yéen suñu mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci suñu ëttu xibaar di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci même chaîne ak ci même heure laata loolu mën ngeen a woy di xibaaru ci seen site bi nga xamante ne affiché wu foofu ci seen bas de l'écran di www.diassigui tv point com.